le ministre le marigot de Mbao désastre la le marigot de Mbao musiba naaru lay la au début lieu de de de de recherche de revenu la woon parce que nit ñi dañ ci daan euh, euh, napp mu dem ba côté yi ko wër yëpp amul assainissement nit ñi daal di ñëw def fa ay branchement clandestin di fa sotti ay euh, li jóge ci fossé di fa sotti ay eaux usées ndoxu taw bi ñëw bool bokk ci tey musiba naaru laay la mu ngay jël ay kër ku nekk di ko jooy ku nekk di ko wax digganteem ak géej gi la fa nekkoon creusé wu na de sorte que diggante boobu kenn mënu fa jaar ku fa ku fa dugg la fa surtout xale yi nga xam ne ñoo fay nekk loolu monsieur le ministre monsieur le ministre de l'environnement te nag lii nga yore secteur bii nga yore communauté internationale bi daf koy surveiller bee day faatu xam nga beewu aan bi moomatu leen ko parce que c'est la communauté internationale qui surveille la baie de Les Pays-Bas vous avez di dugal de day seet li ci vous êtes étroitement lié la vision de nga le président bëgg vous êtes étroitement lié à li nga nous sommes des acteurs politiques mais nous juger ci suñu action gouvernementale Et monsieur le ministre selon Donald Trump avons le droit sortir ci accord de Paris Nous devons créer un tollé international à plus forte raison keneen donc politique boo am wala problème yo, am ak maire ba waru tax nga sétane len ndax ONG yi dugg nañ ci dinañ ko internationaliser xalé yi ñu ngay def le conseil de la jeunesse ci vacances citoyennes yi dem nañ fa def nañ lu ñu mën mais amuñu doole régler problème bobu état mo mën a régler problème bobu donc so dee ministre de l'environnement oui, da nga am problème ak euh, euh, maire ba wala xeyna na a nga sentu élection locale wala xëy na am na problème de positionnement nga bëgg ko seetaan ba loolu nit xaw dégg gu ma ni nit faatu na ci mais loolu mën na indi catastrophe parce que gis nga diggante marigot bi ak euh, géej gi gis nga noonu mu gasoo noonu mais kenn mënu ca jàll mag sax mënu ca jàll waxuma lay xale donc monsieur le ministre ñoom nee nañu defar nañ projet déposé nañ projet bi ci say say service xawma loolu am na xaw ma loolu amul dama la koy laaj mais monsieur le ministre su amee liggéeyal ci sa gox parce que dañ ne da ngay bale ci sa buntu kër bu boba ñun ñi nga xamné ne dañuy laaj environnement nga war ñoo fekk si ci biir Sénégal ñu am yaakaar mais su fekké ni pour des considérations politiques sétane nga leen balaw loola yaqku ba loola baxul ma ne la monsieur le ministre loolu xawma ndax président da la ko baal wala dé mais ñun sénégalais yi nga xamné ne ba ñu ñëwee préjugé favorable rek lañ mëna am ndax jote wo kenn dara té man kuma xam xam ma ci biir assemblée xamné ne man je ne suis pas offensive man toujours damay seet li nga xamni mo assez d'expérience pour xamni nga liggéey bo liggéeyee di nga ci am ñaari di nga joxe résultat cadre secteur sa secteur di nga crédibiliser sa parce que fa nga jógee des nga ko di nga joxe